naar bi kuy ndayem ma nga wax ma bi kuy bàyyam ma nga ni manar bi fi la xamate mom muy tok kaas nga nako bayil carte mi rocci courant mi nga nako bayil courant yoy da bax ci keur ñaar ñi rek bax nañ ci keur gi ñi rek problème nañ to ko bay mu ëmb lan la ben lu la wañ pap naar baa ngi nii ki muy nar bi <laughs> mi ma mel ku koy amul kii hmm, ko bëgg dërëm naar man man bañu ma naar bi de yow ko yow papa ah, ki yow non non papa na gaaw nga changer de yow comprendre de man bañu ma naar bi de eh xol buguma sayi de deng xam nga yaa may tiital depuis sank ba léegi kon waa yóbbu na xaalis bi ah bi itam gëmoo yàlla xanaa non non sant yàlla rek ah, sant Mama rek sant yàlla oh! mamam def na lu ne 124 jinne xaw ma 123. 125 loolu nii ñu Jofaal Tabaski fii mooy Kéemaan Vision